without alaikum wa alaikum salam wa ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa ta'ala wabarakatuh. barakatuhu Allah sama benn ma bu baax Musa sek chéri ko ñando ñena nga ñaanal ko bu baax bu baax la ñaanal ma ko ndeysaan iya, elage hmm elage ni ci dossier sama benn ma bu baax neena nga nga ñaanal ko

Abdourahmane li ñu gën ko xam ci baaba euh, depuis vendredi euh, depuis lundi 17 octobre la réer ko gis rek na woote ci 77 787 46 69 77 787 46 69 ku gis baaba mii rek fàllu ñaa aussi ba tey feeñagul xale bu góor la boo xam ne nee ñu 15 ans la am dafa réeri Cambérène dëgg nag xam naa ne mën na dem changer turam feneen mm. waaw xale bi nag ko gis mu am 15 ans réer nak depuis presque une quinzaine de jours Serigne Fallou Niang tuddu ñu woté 77 549 39 46 539 49 46 yàgg na àll nag yaayam jaaxle na lool. lool ñu japp ci rek. ku ko gis na ci japp gis rek na ci japp waaw Badou Mbengue Alioune Badara Mbengue borom na rufisquois point com borom prix ràññee moom it papam dafa gaañu. ñu koy jaale xam naa samedi la ñu koy dencee nag dinañ ci ñu koy jaale bu baax waaye métti na nag ñenn ñoom. ki nee na euh, Dominique Almeida ñu gën ko xam ci daal di nuyu dafa réer presque douze jours képp koo gis rek euh, nga woote ci cinquante 06 04 51 26 99 xaw ma nag numéro lan la. la ngay woote vingt huit ans la am un mètre soixante dix la jàpp un mètre soixante quinze dafa am santé bu fragile Rufisque la réeree boo gis rek mën nga contacter commissariat bi nga xam ni moo gën a jege Bass Cissé maa ngi lay nuyu waaye euh, octobre rose bi ah, ñu ngi jàppale jigéen ci ay dépistage mm-hmm. ay yu mel noonu mm-hmm. suñu fi ñu tàggatoo c'est la fitness mm-hmm. suba ci samedi bi dañuy def comme loolu benn ngoon boo xam ne à di de def sport defaale dépistage. Mm-hmm. foofu nag sama sama sànq ñu defi sport. Mm-hmm. Fédéral fitness. mu ngi nekk mm-hmm. Ouest Foire après fédération bi. donc euh, ñu ñaan jigéen ñëpp ñu def sport mais surtout ñu assister bon xeetu boobu nga xam ne ñëpp dañ cee nekk nag tubaarkàl la parce que nag euh, ñu ko jégale sportif yi. octobre rose de moom am dépistage bi waaw da nga ko war di wax. waaw ànd ak coach Mohamed ak sama yeneen gars yi coach nag ñu ñu ñu kii quoi. def na kii daal ñu dem jàpp ci kii bi suba aussi Cambérène am na dépistage gratuit ci hôpital ba aussi. Mhm. ci ci rose ba tey ci initiative euh, maire bi ak LISCA. donc suba tamit koo xam ne am nga njàqare ci euh, santé mu jëm ci cancer du sein wala col bu utérus rek mën nga dem foofu dépistage bi gratuit la te buñ ci àndee buñ ci gisee leneen lu ñu détecté mën na la teg ci yoon woo xam ni yàlla mën na la gën a jàppale incha allah suba aussi la fajeka bi gala suñu papa ji Amadou Diagne waaw bee boobu ñu ngi suba la incha boo xam ne nag daanaka ba Fojeka de Fojeka ba tey Sen lañ ko xamee mu wóoluñ ci lool mosu ko soppi kon nag nag euh, yaakaar naa ni sénégalais yi nga xam ne euh, dañoo sopp seen TV. Mm. waaye sopp intégration africaine alaaji. lii am ci Afrique. Mm. lii ci am ci Afrique. Mm-hmm. am ci Tchad démb. Mm-hmm. di yoot yeneen dëkk yi am Burkina keroog mm. yàggul. di yoot yeneen dëkk yi. dama ni gala bi dafa ñëw ci waxtoom. Mm-hmm. Afrique faaw ñu waxtaan suñu biir alaaji. biir Afrique yi. yëddante yëddante yëddante suñu biir te mën noo xamal ñu waxante suñu biir parce que lii raam ci Afrique jëmut kër coow loo xam ni ay njiit dong ñoo koy andi ah, ci ay mandat de trop kese moo koy andi coup d'état am na téye nga intérim daal dafa dañ ba tuddee tubaab intérim la ko tuddee hmm. dafa am wax woo xam ne day jeex nga dem sa morom ñëw waaye nag nguur gi moom moo jeex parce que nguur dafa neex loolu nag teguñu ko fenn nañ yeddante suñu biir nañu dem ca gala Fojeka ba am na forum alaaji parce que gala bi daanaka soir bi dafa gën a fës rek. mais am na forum boo xam ne daanaka pays africain yi dañ fi am représentant ca King Fahd. ñu waxtaanee Afrique waxtaanee intégration. rawatina koomu Afrique. guddi gi nag sama rakk ji Waly Balla ko sekk ñëw ak ko ñu daal di yëngal kësam. am neex King Fahd lay amee. na Waly sama rakk la. ah nee sa rakk la. waaw sama rakk la. d' moom Waly eh, sax dina d' moom sax sama rakk la. waaw dina d' moom. Euh, ñu ngi ñu ngi jaale sama sama mag ji. Euh, grand Lamine Camara grand dafa génn àdduna. Hmm. Euh, mère Adjane Ndeye Madeleine Silla. ndeysaan hmm. mu ngi génn àdduna jeudi démb ca Dubaay. ñu koy jébal doomam incha allah daañu ko daañu ko annoncé. daañu ko communiqué ñu koy jàll famille bi yëpp. madame ñu ngi ay sa ay satu ay satu nanet ah, ak euh, Ousmane Eudra Diouf ñu ñëpp ñu ngi koy jaale mm-hmm. hmm, di ko jaale man leen Camara famille bi yëpp daal tubaab kàlla ñu ngi leen di bokk ak tiis bi mm-hmm. suñu ko mag la suñu xarit euh, Lamine Camara mm-hmm. ñu ngi koy jaal di bokk ak moom tiis bi ak métit bi yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare aljanna mubarak. sama bësam judd la. laaj yi tës tës tës tës yi ah, nag moom. ah dama laa judd de. tës yi nag moom. dafa bëri tey ci journaux yi. Hmm? ah laaj. Hmm? tey fait divers dafa xaw a bëri ci journaux yi bu vox populi bi moom dafa xaw a maanaam dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa yaatu. mais ci ñu tënk ko rek. xale bu jigéen bi dafa am borom kër. am benn patron boo xam ne. Euh, moom dafa am lu mu doon séq moom nee ñu ab libano sénégalais la. Mm. patron waaw. xale yi nag léegi de dañuy maa ngi ko doon fii keroog alaaji. Mm. dañuy def de telle sorte du ma wax ni koy defee parce que bëgguma ñu tàmm ko tamit moo tax damay damay tëb ni ñu koy defee. Mm-hmm. noonu la ñuy def téléphone bi am sa whatsapp yow loo loo jot ci ojo ñu jot ko loo jot ci photo ñu jot ko. loo jot sticker ñu jot ko loo jot ci message écrit ñu jot ko. Mm-hmm. waaw noonu la ñuy def mooy mooy feem bi rek. lay mhm. bàyyi noonu. Mhm. léegi nag waa noonu la def soxna si parce que da ko soupçonné. jëkkër ji waaw nee na de de de sept heures à dix sept heures moom patron bi ñu ngi envoyé te message. <laughs> nee na patron bi daal di envoyé xale bu jigéen bi ay maar day ci ay cëram moom bi ay cëram. maar day taal daal lay jël di photo xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi tamit du ci tontu yu doy waar xam nga rek xale yi. di tontu patron bi ci cër yi yu doy waar. Hmm. ku nekk day photo envoyé. wala kii moom patron bi moo photo moom muy commenté moom muy commenté. ba yàgg patron bi ne ko nag fi mu toll nii soxla naa la nee ñu ànd. Hmm. jëkkër ji nee xam naa fi ñu ànd jox na ko somme après vingt mille francs la. parce daf ko ñaan passe pour dem seen dëkk. nee na bi mu ñëwee jot na ko sax cokkaas jabar ji ne ko waaye loo xalaat ci diw mii nga xam ni. dafa jël jànkam di séq ak moom benn fait divers bu fi jàlloon fan yee. am na benn kilifa. wax exemple kilifa googu mu ne ko kooku li mu def du yoon patati patata wax mu ne ko waa loo xalaat yi ku am jëkkër ba pare dem di séq dara sa patron mu ne ko loolu de lislaam da ko araamal wax wax ay waxam. waa ji nee na ma tegal ko woy Abdou Guité Seck. am na coup d'état coup d'état bi na bëgg na. Cheikh bëgg naa dëkk bi lan lay am na coup d'état ba waali teg coup d'état coup d'état lu muy wax Cheikh wax nga doon coup coup d'état la ko waaw pour mu naan na ne. eh jëkkër ji bëgg na ndaw si nag. non moo tax ci la mu teg ne ndaw si jooy de temps. nekk vingt quatre cinq heures de temps jooy na ko. Mm-hmm. boobu gàcce. yebal na ko bagage am nag mu dem ci mbokkam. mais genre confidence la doon dem la doon def. pour ci diggante patron bi. jabaru patron bi ak jabaram yi nga xam ne yëg na ko ci yëpp ba feeñal mbir mi te pourtant nee na jortu ko woon sax. Mm-hmm. foog ko woon sax loolu. sax mm-hmm. dina am donc wax ne fii réew ma toll la. fii réew mi toll la. waaye dafa am sama foofu. yebal na ko dem seen kër. mën naa donte kenn conseillé wu ko ah, kenn diglewu ko. xam nga kenn diglewu ko. Mm, mm. mais moo tax mu ne waa dafa ndax dal. Ah. dal donc genre yooyu. yooyu ah, mu benn paa dafa baax nee nañu géej way la dëkk tudd Mor Sow Fall. waaw. ko démb. Mm-hmm. mu ngi Medina. mu ngi Medina. gis nañ mu ngi ko ñu ñoom as euh, délégué de quartier Adja Assou Gueye. démb jot naa message boobu te jàllale nañ ko. ñu koy seet waaw. kon boobu feeñ na Medina. boo demee ba Medina côté rue 5. Hmm. nga laajte kër délégué de quartier Adja Assou Gueye. kër délégué de quartier. waaw Adja Assou Gueye. Mor Sofa. waaw. fan. Euh, rue 5. rue 5. करते की तो करते जा सके est-ce que foofu sax nga cinq la damaa xamatul Medina di ak ma koo ngi noonu mun naa mun ah kii nee na coup d'état infidélité e lay wax ah loolu lay wax waaye booy boobu Cheikh foog nga foog nga tegal ma ko ma déglu ko bàyyi ma ko xel la. bii dina naan ma ko. wala Abdou Guité boobu. boobu comme comme kii boobu mais mais mais de loolu la ko tegal. coup d'état. pour mu naan dafa am dafa ànd ak sang froid. man de sama jabaat bi nee naa. dafa am am bu woon kër. voilà moom màgget. Euh, yàlla na ko yàlla may. waaye mu ko baax waaye ñun ñu jox na sama jabaat bi ku mu gëj a wax ju baax waaye ñoo nga ma xees neex ndijaayam. Maadou. Pape Diouf Koli laaj mi ngi bu baax. mi <laughs> ngi bu baax. ah Omar Sow dafa bëgg a dem projet ka ba Omar yow da war a dem. Mm-hmm. ma rakk ji dafa war a dem de. ah Thiambour Guewel ah, album bu bees la ah, Cheikh foo nga tegal ñu foo nga tegal ñu loolu ñu xool lan la Abdou Guité boobu moom foog ñu xool lan la. plaque beneen tës bi. Mhm. ci turbine la nekk. xale bi treize ans la am. maam juma juuf la tudd. Mhm. maam juma nag dafa faatu neenam ci anam yoo xam ne dafa xaw a doy waar. Mhm. ab jigéen la waa treize ans la amoon mu faatu ñu daal di koy rob ci guddi gi. mardi bii paase. ci taw bu metti nag. nee nag magu pàppam moom moo ko moom moo ko gaawantu rob ko. mu nee nag démb nag alaaji mhm. ci la policier commissariat central bu Diourbel bu Diourbel mhm. dem euh, sulliwaat ñëw ba exhumé ko mhm. génnewaat fa xale bi yóbbuwaat ko hôpital ngir ñu def ci moom autopsie ndax nee daal faatu bi daal dafa xaw a téye xel ndax nee amul amuñu benn papier bu certificat buy constaté décès bi te taw euh, rot nañ ko ci taw bu métti boo xam ni fan la décédé ah? ci kër foofu noonu waye de li gëna graw moy mooy dañu koo rob ci absence ay parents ay parents ci absence ay parents lañ ko jagat jagate ci taw bu metti yóbbu ko ci ci sëg yu rob ana ay waajur ay waajuram ñu ngi fi ah lu tax ñu sul seen ay doom te fek lool nak moom moo tax nag ñu sulli ji ko parce que ñoo bëgg xol lan mo waral patam patame ko dal di koy denc ah, niki dem na sapeur pompier and ak agent service d'hygiène ci supervision bu commissaire nañ ñu morngom mm-hmm. ci kanamu nak papa ki nga xam ni mooy xale bi ak ki nga xam ne ñeneen moom mooy suspect bi ci lañ daal di déterrewaatee xale bi exhumé ko génnewaat ko yóbbu ko nag hôpital bu Grand Yoff ngir autopsie ko. ba nii nag leen jàpp ñu benn autopsie euh, jàpp ñu benn suspect ci enquête bi waaye daal buñ sukkandikoo ci source yi nga xam ne moom moo di nijaay yi daal moom boo moytul nañ ko yóbbu ci procureur ndax nag dafa denc xale boo xam ne daanaka clandestinement la ko dencee. ndax amul benn papier bu ko mën a attester ne xale bi lii moo ko faat am nañ autorisation ñu daal di koy denc. Mhm. donc mu ngi yaay maam Diarra Diouf nag euh, demoon na ci euh, cérémonie nee ñu euh, ci kër ga vers dix neuf heures ba ko waxee ni doomam daal faatu na waaye daal dee gi luus na denc gi luus na moo tax ñu bëgg ci nag ak leeral ba daal dinañu daal exhumé xale bi. mbokk. ah maanaam dafa doy waar autorisation. waaye ñu répété ko tamit ak suul ah. dafa doy waar de lii exhumé de c'est pas gratuit. <laughs> ab sa baaw ndam sa baaw sa rakk laa respecté li nga réeral kenn du ko communiqué. ah bon tey kenn du ko ko communiqué bu mu jëm kaw bu jëm kaw. ab sax bu mu jëm kaw yow yow balaa dugg tëb bi alaaji tëb bi tey dafa metti dafa metti dafa metti alaaji. Hmm. dafa metti. Hmm. bëggoon naa ñu déglu Abdou Guité tuuti doo dem ci tës bi waaye dafa metti waaye temps bi daal maa ngi ko dul may ndax tës dafa metti xale bi da nga koy déglu sa xol laaj alaaji. alaaji xale bi nee na la am. Hmm. góor jigéen. jigéen la. 30 la am 30 la am. alaaji xale bi nee na. Hmm. yaayam ak papam dañoo nekkoon. Hmm. yaayam nag am na juróom-ñeent ci bant. ci glim macha allah yàlla nañ màgg te jëriñ. amiin yaa rabbal aalamiin. nee na ji takk beneen soxna indi ci kër gi. bi mu takkee beneen soxna indi ci kër gi alaaji. papa ji nag dafa defoon ñaari bâtiment ci benn kër. waaw mhm. abandonné yaay ji ci benn bi. Mhm. teg boole koog di ko naqaral. Mhm. di ko wax ju ñaaw. ba sax dem na ba doomu ñaareel bi bu ñu foog seeni doomu baay papa ji di leen wax wax yu kàddu yu ñaaw genre yaa ñemeñ ñi bay dugg ci ñoom. ah maanaam tam yaay ji xëy taanu feebar. xale bi nekkoon fii Dakar di liggéey bàyyi liggéeyam dem ca dëkk ba jële yaayam foofu andi hôpital mhm. ndek yaay ji alaa ji dafa souffrir ba am cancer stade boo xam ne mhm. avancé na mhm. ji faatu na alaa ji moom mi am 30 sëy na ba am ca ñaari doom moo doon dimbali xale yi pàppam fexe na ba tas sëy boobu léegi nag mu nga ca kër ga uuf ay doomam waaye du jàmm du salaam du dundal du toppatoo du faale. moom ak i rakkam. alaaji moom. Mhm. ak ay rakkam. Mohamed sax nee na ko ndax yow kalaame ko say mbokki papa mu ne ñëpp yëpp nañ ko ñëpp wax nañ ko. Mhm. waaye danaan dina toppatoo waaye daal duñu sax dafa mel daal ñoom maanaam daal xale dafa mel ni existé ci moom. Mhm. da leen fàtte abandonné leen comme ni defoon seen yaay. xale bi nag ne na naqaru xol gii mu sentir ci yaramam day ragal mu jëni ndayam te bu ko defee ay rakkam daañu sànku daañu ko ñu déglu ko sama papa lañ nekkal sama yaay dafa gaañ mu am trois ans mars mu doon dundee ak sama daal moom lay dundee ak man mooy abam sama lañ nekkal sama yaay Mhm. mu bàyyi ma ak samay rak mhm. am naa quatre rak jigéen ak quatre rak yu ak man ñooñ na si kër gi mais daal daf ñu abandonné mu ngi ak jabaram nag si biir kër gi du ñu defal dara du ñu waxal dara man maa yore xale yi maa leen géré te xëyu ma ma sama yaay tamit li muy dund moo yoroon moo moo ñu yoroon après man dama mujjee sacrifié ma bàyyi sama jaan dem Dakar di liggéey jàppale après si laa ñibbisi bi mu commencé feebar si laa ñibbisi toog si kër gi ak moom mu feebar feebar ba metti soo mu torop aw ma ku mu dimbale si moom ma nekk si moom nekk si nekk si ba bu mu sonee ba sonn si laa ko yóbbu hôpital Dantec ñu xool ko après ñoom sama yaay dafa cancer man xam naa ne dafa cancer parce que dafa doon dund naqar sama papa nag léegi mu ngi ñu bàyyi si coj duñu defal du ñu waxal abandonné ñu man aw ma ku ma dimbale xale yi ñu ngi ñuy école ubbi na ñuy jàngi amuñu fourniture duñu am dara ñànk pañ sax dama koy añee wala ma di ko reeral man ak samay rak aw ma fu soo jëm. soxna si yow ñaata nga am. man 30 laa am. 30 ans nga sa taawu sa taawu yaay. mooy sama taawu yaay waaw. ñeneen xale yi ci des yëpp say rak lañ. ñooñu ñëpp samay rakk lañ sama yaay dafa mujjee ay góor góor ñi ay xale lañ dama mujjee ak jëmbal a nekk xale ñaata at la am ki ci gën a nekk xale sa rakk bi ci gën a nekk xale ñaata at la am neuf ans la am ok euh, actuellement nii ana sa papa mu ngi yéen ak moom yéen a nekk moom si kër gi waaw ñoo dëkk si biir kër gi seen papa mi ngi leen di gis chaque jour di leen romb noonu sama papa ñu ngi gis chaque jour di moom man mii di mag sax bu ma rombee du ma nuyu des fois day toog mu yàgg mun ma nag bagage yi nekk si néeg bi ñun ñu génn si néeg bi abal ko néegam bu mu yee day di lekk moom ak te man su ma débrouillé wul sëñ bi man ma débrouillé wul pour xale yi lekk du ñu lekk te man moom ngont moom école bi na te yaa ngi nii amuñu sax kege pour ñu dem jaay amuñu dara man sëñ damay dund ci stress sa ji damay feebar du ma lekk nelaw sax du ko def parce que li may dund dafa metti torop bu mu mënu ko sax expliquer. kañ kañ ka ka euh, maanaam euh, sa papa kañ la leen gëj defal dara. sama pap avant sema yaay di gaañu ba tey la abandonné sama yaay di wax sama yaay fas naa la di wax sama yaay lépp depuis sama yaay gaañoo ba tey am na trois ans le trois mars bii di ñëw lay am trois ans mais daf ñu gën a bàyyi du ñu dara du ñu waxal dara bàyyi ñu ci kër gi. beneen jabaram bi dafa nekk ci kër gi. beneen jabaram bi mu ngi ci kër gi. dafa moom dafa moom ay waaw am na ak moom ay doom. moom dañuy togg ci biir kër gi yéen ngeen koy gis. dañuy togg ci biir kër gi. sam pap di xëy di dem di jënd ndékki ci biir kër gi wala jabaram di jënd ci biir kër gi di tàngal ndékki di ndékki man am naa jëkkër ba am ak moom ñaari doom samay doom soreewuñu seen date de naissance yi kii am na kii dugg na ci quatre ans kii dugg ci trois ans un an rek la ñu magantee sama jëkkër doon ma defal lu nekk sama papa dugg sama diggante ak sama jëkkër ba sama jëkkër finalement déggatuma ko sax téléphone mu yor sama rek yor sama ñaari doom góole naqar sama yaay teel a génn àdduna bàyyi ñu fi même pas cinquante ans sama yaay gaañu hôpital Dantec la gaañoo. ok sa papa amul ay amul ay rakam wala ay yoo xamante ne nii maanaam euh, dem nga ko la calamité wala situation bi nga dund noonu nga expliqué leen ko. papa. ay rakk yu jigéen moom moom kese la yaayam am doom bu góor mais am na ay rakk yu jigéen mais ay rakkam yu jigéen tamit ñoom bu am 9 ans bi sama yaay gaañoo dama joxewoon sama ak daaw jéeg léegi ren mu ñëw si vacances ma ko dama mu ne ma pour mu dem mu ñibbi foofu tam Samba Dieng ñoom ñëpp xam nañ situation yi mooy dund. parce que amul kenn amul kenn koo xamante ne nii maanaam wax na si ak sa nañ si ak sama papa ba sonn mais sama papa ku ak moom rek du la faale te bëggul tamit kenn defal ñu dara bëggul kenn defal ñu dara bu demee buñ ko nee su doom yi seen yaay gaañu nu mu def mu ne mu si jàmm maa leen di defal lii maa leen di defal lee te fekk moom du ñu defal dara man maa ngi souffrir maay fay ndox maay fay courant. may jënd lekk. xale yi lu ñu am suba ba ngoon. xaaral da ngay fay courant dañ leen a départager kër gi mbala lan la. man sama néegu yaay moom xaaju kër gi de sama yaay dafa amoon fu mu dëkk moom jabaram mu am fu mu dëkk à part bokkuñu fu ñu dëkk mais si benn kër gi la sama yaay dafa xëccoon ay robinam ay courant affaire yooyu yëpp yëpp léegi man maa ko gérer man maa koy fay scolarité xale yi man maa jéem débrouiller pour def ko instant bi si benn village laa la période di tax la di sax mhm. damay génn dem si àll bi yor sama paan ak sama bant nekk si garab yi di ut di tax ci faraato su mu ñëwee dama koy denc une semaine ma génn ko di ko jaay pour ma am si rek lu xale yi mënee lekk des fois des fois damay lekk ñeenti kat ak sama rak ak sama doom des fois duñu ci sa fekk des fois ma dem ne leen leen jënd biscuit ngeen lekk après ñoom tamit dañuy comprendre. léegi sa jëkkër bi nga xamante ne nii maanaam moom ma doon sëyal actuellement nii fasewu la mais dem na. fasewu ma waxuma dara mais sama pap moo dugg sama diggante. lan la sa pap duggee sa diggante ak moom. di wax di wax parce moom nee na sama yaay baaxul sëy ñu bu baax. affaire yooyu commencé di wax ba finalement sama jëkkër dafa mujjee dem takki beneen jabar fekk boobu sama papa mu ne ma génn kër gi ñëwal nga wax ko muur ko mu sëyi pour mu génn kër gi mu dem après kooku ñoo ne ma dama bëgg nga sëyi nga sëy si ma ne ko sama yaay dafa gaañu même pas un an nga ne man naa ñëw sëy si xanaa amul yërmande si xale yi di sama rak man ki sama fi mën a ne te yow peut être boo xamul sama situation kër mu ne maa ma ne ko man xam naa ko ma ne ko sama jàng lii moo ko yàqal jàng naa ba troisième année ba ma waree def troisième laa gis condition yi sama yaay di mu metti torop neexuma ma arrêté sama jàng dem Dakar di liggéey lu ma am indil ko ko si kër gi bi sama yaay feebaree nag lay woo ma ci laa arrêté liggéey bi ñëw toog ak moom. d'accord euh, sa yaay bi avant mu doon gaañu fekk na sa papa takkoon na jabar. sama yaay sëñ bi naqar moo ko rey ba mu am cancer te man loolu laa ragal ndax xam naa ne man stress bii muy dund métti na torop man du ma génn du ma lekk du ma nelaw damay xool ba deux ma may doog a nelaw six yeew damay fanaanoo xalaat bu ba set damay avant ko yóbbu hôpital c'est cancer bi mën na ko. da ngay ragal li li li dal sa yaay arrivé la moo tax ngay arrêté. ndax man sonn naa torop aw ma ku ma man ak sama rak ñu nekk neuf ci kër gi dama mujjee mo ku góor ki sama rak mbabu ren dama ko ne bàyyi école mu ñu war a def troisième ren dama ko ne arrêté sa jàng bi nga dem di liggéey di ma jàppale comme que moom mënu mu dem ngeen bëgg. ñu wax ak seen papaam wala lan ngeen bëgg. seen pap mënu ma ko wax dara tey su ma demee seen si rajo wala si télé di ko wax naan sama papa wala ak moom. Hmm? ñu ne dafa génn di yàq teeru papaam wala di def papaam naka su dul noonu parce que kilifa la. de chef benn affaire boo xam ne mën naa si jàpp di liggéey di dimbale sama rak ma di ko def. d' accord léegi sa ki nga xamante ne nii moom mooy sa moom mooy sa wujju yaay euh, maanaam moom naka ngeen nekkee ak moom ci biir kër gi. kooku ba muy dund dafa woon ak sama yaay même daf ñu dem sax ay dama ngeen doomu woon sax wax ak sama yaay booy wax ak ñun. instant yi moom da leen itam dëmm yéen. moom daf leen itam dëmm. li sama yaay doon dund loolu lañ doon wax. mais doomam ñu jege mu ne bu leen ñi nga xam ne yaa leen ñeme ba di leen jege bu leen jege. bi sa yaay gaañoo ak léegi euh, du wax ak yéen euh, kenn ci yéen. du ñu defal dara nii la ñuy romb du wax sax sama yaramam du daw sax mu ne sama pap ñii amatuñu yaay te ngay def ci ñoom du ko sax def. du ko sax def fii ngay wax ak yow sama ñaari doom ak sama rakk bu gën a ndaw ñu ngi taxaw sama kanam ñi ngi a añi suñu waa kër yi ñu ngi añ ñu taxaw ma am xale yu toll noonu. instant bii nii sa rakk yi ñu ngi taxaw yi instant yi ngay wax ak man nii heure añ jot mais say euh, sa sa sa tante bi ak ay ak sa papa. ñu ngi na ba dem liggéeyi. d'accord léegi lan nga bëgg. ma dimbale ngir yàlla te yàlla tax lu ma am baax na lu ma waay may baax na bëgg naa liggéey tamit dimbale samay rek laa am ñun tamit man kese lañ am amatuñu yaay seen papa abandonné nañu. d'accord madame merci beaucoup. kër de. wallaahi wallaahi. est-ce tayef la waaye ah. waaw waaw nekk tayef tamit de. sama ci. loolu monsieur naa wax ni bëggoon naa wax ni. est-ce que tayef ko gën. la. waaw bëggoon naa wax loolu yedd yërëma ko gën est-ce moo ko tey question la eh. mais li mu teg xale yi moom jaaduwul dafa ëpp dafa parce que mu nekk say doom doo leen jox ñu lekk ñu dem ñu ay ah, jaay jore ay rakam ah, nga bëgg a génne mag ji mu dem sëy force bàyyi fi ay rakam Hein? Euh, dox ci maanaam jëkkëram mu bàyyi fi jaww ji abandonné ko ñun du ñu lekk léegi mag yi bu sey won bàyyi fa yeneen xale dañuy xiif ba dee non non paa bi ce que weex na. Ah, li nak moom petite solution à long terme la te dina jafe lool solution dal vu que moom mënul génn ci euh, village ba parce que laaj bu fa di ji génnee fu muy def muy def rakkam yi. fofu rek la mën a toog village parce que dafa liggéey peut-être. ñu jéem a xool bu amee benn loo bu bari ci di tax bi ñu jéem comme ñu ko ko jaayal. waaw wala loolu may ko yenn appels yoo xam ne wala ñu joxe numéro buñ ko ko mën a dimbali rek. ko mën a dimbali te yàlla tax mais ko mille francs yónnee ko ko am départ au fait maire bu Point E Pala Samb man ñeme naa la cité loo ma mën a jàppale ci fourniture yi fourniture rakkam yi loo ma ci mën a jàppale te yàlla tax rek man man man moom dama la nomé yow dama la cité nga ma wax ba noppee. waaw boo paree après ñu xool ko mais alaaji Palla dama koy cité. ndeysaan. dama koy cité duma ko sax xaar mu passage ma cité naa la monsieur le maire ay fourniture laa bëgg ay fourniture pour pour rakkam yi. ay fourniture léegi nag ma xalaat kan naa war a gàll inscription bi. inscription xale en attendant ñu xool ban solution lañ koy utal ndax lii dafa métti. dafa métti à court terme quoi dëgg la xale yooyu noonu xale a investir. xale ak jirim. def na. ala tat tat tat ak mat a xel. ak mat a bàyyi xel. ak mat a xel hmm? mais seen papa ji itam lan la. wallaahi. Hmm? jeexna legi jeexna mo man dama ko ñëmé tuddu ala sambe yalla na la yalla fay. mi lay fi merci. ziar naa Pala yalla yàlla na la yàlla fay. amiin yaa rabbal alamin ala ñëna na jël na lépp en charge. bo bu sonn ko ko kenn la. c'est que numéro yi nak duñ ko mën di joxe ku koy ko jox rek. waaye jaay la ko ci directement. parce que numéro Tossi moom duñ ko duñ koy joxe parce que dañ ci amoon bés. waaw du waaw ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku très digne bi daal Mantoulaye la. waaw ku joxe daal joxal Mantoulaye vraiment euh, day xaw a compliqué pour joxe numéro am. incha allah ku joxe Mantoulaye. madame madame sa générale it dina am lu mu jël alaaye la moo tax ma bàyyi joxe numéro tas ma leeralaat ko fii. Mhm. dafa am ku ma mos a woo ñu siiw lañ couple bu siiw lañ. Mhm. alaaj ñu siiw lañ fii Sénégal. Mhm. message ma Facebook ne ma ki nga doon jàllale tës day dama ko bëgg a dimbali. yaa ngi may dégg. mooy toujours waa jooj fi ñëwoon dañ koo yàq muy jël. waaw ba kër ay patron daf fa doon jël. waaw. Mm-hmm. ba ma joxee femme bi numéro waa ji. Mm-hmm. dafa amoon patron boo xam ne daf dafa amoon employé boo xam ne da ko doon jëlal. Mm-hmm. dafa jaar ci man pour leerlu ndax ah, même employé bi la wala déet. non euh, wallaahi asil ba matul deux jours femme bi mi ngi may message pour moom dama fàttali ma def fàttewu ma ko saa ba message yow WhatsApp dama ko sax tontu. <laughs> ku siiw la alaaj naa la wax turam. yore boutique bu rëy fii. ma loolu loo ko mën woo waa ne ko ah kon yow ndekete yow la kon yow la daan manqué sama boutique yaa ko daan sàcc ak sama kër. mais kooku dafa yabaate. nar ko indil problème. moo tax ku ñëw ne ma jox ma numéro kii bu ma la ko jox abus de confiance la loolu damay cité sa tur woon turam abus de confiance la ku koo xam la xam jëkkëram ba ma paree wax la turam moom turu jëkkëram di la wallaahi lii la ma def barki démb rek laa la wax la wax ci ci ci ci ci ci whatsapp. waaye fàttew ma. dañuy jaxasee nii la. fàttew ma de ma de jëf jooju nga def fàttew ma ko moo tax ku am loo yónnee tës yónnee ma ko maa nga yónnee ko madame Dramé. ndax boo ñu ko joxee ci loxo yi wóor la jaar waaye jox numéro kenn ku ñëw tës moom doot ma ko defati. incha allah. dafa ñu waaye Paala nee na mën naa jaar heure bu ma neexee récupérer fourniture yëpp. Mhm. merci monsieur le maire. jaajëf dinaa la woo après incha allah nañ la reste ñu xool ban heure monsieur le maire dinaa fa ñëw incha allah récupérer fourniture yi comme ça leneen li ma code la ak moom naka lañ koy defee. Mhm. sama yaay ju baax ci madame Fall général aussi alaaji. Mhm. nee na dina ci jàpp. madame Fall madame Fall général day ak inspecteur day. inspecteur du ñu topp ay nit di laajte numéro pour di. di di di di di di ta di taajaañal nit ñi. ñoo xam ne dañuy def te yàlla tax kenn du moom. bëggee bay bëgg a dee. kenn du dañuy def te yàlla tax. waaw boo bëggee sax nga topp ki la sàcc. mais doo aw ci ñun di def ay escalier. non non abus de confiance boobu. naan dama koy dimbali. wallaahi dama bëgg a bëgg a leerlu ba xam. wallaahi mooy sa ex emploi. loolu de Mag Chérif liñ ko naqarlu fi loolu loolu loolu soxna si def Mag Chérif dañ ko naqarlu bay bëgg a dee. di jaxase ay nit wallaahi wallahi ko way di yo tes mhm. ni fi ñew pour solution yo ngay ngay bo bëggé japp sa sacc ke ñu léral aussi ñi nga xamé dañu am ay cas sociaux ci kaw la kay directement ci madame dramé ñu ñew madame dramé moy régler cas sociaux yi ñun fait divers lañuy régler fait divers na yeen sa day and cas sociaux motax ñu ko jël diko tek mais képp ko xamni da ngay ñaan dimbal muy inscription mu lu mu mën ci doon ñu ñew directement ci madame dramé ci radio bi moy social la lay mëna fay wax na deug moo social ah daañu ko jàppale bu baax yaay booy incha allah. incha allah ku jar na jàppale na. madame Fall kon maa ngi lay déglu comme day defar visio comme may appareil boo xam ne defar bi day gën a gaaw. Mm-hmm. yooyu yëpp xëj na ci. ndeysaan Palla Samb yal na yàlla fay la ku fi ne. Cheikh. allo Manke. waaw. Ablaye. lu grand de tout sama benn sama benn yaay bu baax di tudd turam sama yaay bopp. yónnee na ma vingt mille pour xale bi. merci. sama benn yaay ju baax bëgg ñu tudd turam nag. waaye sama yaay bopp la sama yaay xol la. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. yaay ju baax. mën na teg nit ci yoon. ndeysaan na ko yàlla fay. nii am na yàlla fay. yàlla na ko yàlla fay. ñu sa sëriñ bi. parce que dafa métti ci xol paa kooku. papa Ali. ah man de papa Ali. ah yow sama sëriñ bii woon yow. le grand retour. waaw ah. ah, woon de. sëriñ ba léegi loolu. sëriñ bi woon na mën naa laajte naa la ba sonn. dañ ko woon waaw ah, sëñ bi daa duggoon xalwa. mu duggoon xalwa kay. waaw mm. ci laa nekkoon. ndeysaan. waaw ndeysaan. te mi ngi dëggal noonu kat. ndeysaan naan waaw. <laughs> képp ku soxla madame Diallo da ngay ñëw fii ci rajo bi dégg da ngay ñëw fii ci rajo bi duñ joxe numéro bi da ngeen ñëw fii ci rajo bi. boo ñëwee laajte ko ñu leen ko incha allah. ayca.